jëf téléspectateur Equivox TV jaa ngeen jëf itam yéen ñi di amateuru lamb ah ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax rek euh, bienvenue ah dal leen jàmm ci seen beneen journal de la ren ma ci ànd toujours ak sama càmmiñ l'incontournable Babacar Babacar nuyu naa la. soxna Oulimata Seck suma rakk sama xarit sama jigéen. maa ngi lay mhm. fay borom rek ñu neex <laughs> mu mel ni tey dañoo déggoowaat ci couleur de. waaw du mën a ñàkk xol lay gisee. Mhm, laal suñu bleu suñu bleu bleu de nuit wala bleu marine xaw ma sax. bleu la daal bleu la bleu la de. man day sa bleu moom ak sa bleu tey moom benn la. kontaanati naa daal fa ko wax rek non maa la gën a bëgg yow soo kontaanee rek kontaan naa xool day gisee te lépp kenn du ko wax. ayca ñu seetaan nit ñi suñu revue de titre te ñëwaat. lundi 29 mars 2021 dañu ñëw kii ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu làmb nag fi mu nekk nii li olof wax rek lu def waxu lu ay di njàmbat loolu la xëyee tey ci xëtam mu njëkk mu diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 mu ñettelee combat ba nga xam ne ca la ñu war a jëm la 4 avril yëglikaay bi nag mu mel ni ki daal mbër ya ñu ngi woon ca benn triple triple lex boo xam ne moo leen boole woon doxoon ci diggante Lac ak Eumeu seen ak promoteur ba leen tëgg di Gaston Mbengue yëglikaay ba nag la mu gis ca ñaari mbir daal dana fi mu nekk nii daal calme daal la ñu gis avant tempête boog avant yëngu-yëngu yay commencé commencé daal ku ci ne ak dal ngay wane waaye terewul daal ku ci ne wax nga ndax Eumeu Sène moom la mu wax ne na moom daal li am ba des daal xam na maanaam ni muy ni muy détecté wala boog ni muy lijjante ay force ak ay faiblesse ay adversaire am ku ci ne xam na yow la nga ne ak la nga tële ba tax na moom adversaire du ko jaaxal Eumeu lii la gis lak nag tamit tontu ko ne ko loo ci mën a dégg day boo xamee loolu waaye xamal moom def naa ko bu baax a baax a baax samam xel gën naa ñëw samay xalaatam gën naa leer kon nag bàyyi xel ci loolu bu baax a baax lak moo tontu loolu Eumeu Sène mel ni ki ba tey combat boobu mi ngi yëglikaay bi daa def benn micro trottoir fa nga xam ne moo di ci réewum France fa nga xam fa nga xam ne moom la ñuy wax niis wala bopp Côte d'Azur waaye foofa daal daa mel ni Eumeu Sène mu fëpp la ay soppe wala daal Eumeu daal la ñu gis ne kon moo war a daan combat booba nag suy am balaa moo am am na beneen combat bu ne ca ginnaaw bu neex a neex muy diggante Diène Kaïré ak Modou Anta Modou Anta moom nee na fi mu nekk nii moom man Modou Anta arbitre laay xaar mu soufflé pare naa ci côté yëpp yëpp yu mu mën a doon Diène ne ko loo ci mën a dégg soo paree day jàppal ci sam xel ne mënoo maa ébranlé yow mënoo def loo xam ne daal daf may jaaxal ñeneen ñoo xam ne moom pare woon nañu ba moo ubbi démb saison bi ci lambi dóor mu diggante booy melax ak ka nga xam ne mooy B52 junior ñoom ñaar nag soo bëggee dégg dëgg seen combat ba yàgg na ne daaw ak ren démb nekk fa daal di lewaatoo waaye fañ mujj nag mooy mbay ma booy melax daan cinquante de junior yëglikaay bi ñëw na ci démb ci arène nationale sëñ Modou Niang mi ngeen xam te mu tàmm ubbi saison bi moo ko ubbi démb drapeau soxna naxi fàllu fàll sunu làmb xëy ba tey dina wax lool keneen koo xam ne nii moom maanaam écrit yooyu mbër yi nekk jiite muy Malick Ñëng moom nag fi mu nekk ni daal la muy naqarlu ba tax mu ñor caa jël ay mesures maanaam lenn la maanaam mbër yi nga xam ne dañuy xëy xëy rek quitter seen école yi wala seen école yi dem kër yi te jàpp na ne du tege ci aw yoon moo tax nag fi mu nekk ni daal nee na li mu nar mooy ba yore làmb ji ngir nag mbir yooyu ñu xool ko ba nga xam ne buy amate daal au moins sax danañ jël temps bu yàgg a yàgg ngir des mën na koo def waaye nag jàpp na ne nit di sonn ci yow wala ay nit di la sonnal di la guddi di la bëccëgal ba nga man la nga a man nga xëy xëy damay beru beroo ci nim la neexe ne ne loolu moom deete su ko seetaan mu fiy amee Malick ñi nga ko wax du sama ay wax ba tey bu nu continuer ay mbër yoo xam ne ni moom maanaam wàllum formation gàddu rapproché ban doon def jot nañu seen ay diplôme muy tey seen gin gi neew nii moom moo di ci Equivox su daal lan fay fekk moo di Fallou Ndiaye nga xam ne moo woote woon samedi fa nga xam ne moom moo doon ca fa nga xam ne moo ne arène nationale ak ñeenti million fa tegoon mel ni que nag xaalis ba daal Franc moo ci mujj a toog loxo maanaam mbër ya bëri woon nanu lool lool muy luur ba di la ba Franc nag moo finaal ak tas yaakaar dal di koy daan jël bu rëy lekk la nga xam ne nii moom lan fa tegoon yow bu un million trois cent mille francs ñu ne déet ne waaye lese ba kaaw gourne tamit wane fa boppam a bëreem technicité am lekk cinq cent mille yóbbu ko loolu moo am ca arène nationale ba loolu mu nga fa nga xam ne ni moom moo di ca Equivox ba tey bu nu continuer ca arène nationale booba wala boob nu continuer ca lambi simple ja dimanche ja jax si ñëw ti terrain gaal gi indi fa ñetti million mel ni ki foofa te mbër ya bëri woon nañu lool jongante ba metti woon tar rawatina demi final ba doxoon ci diggante Franc ak Ibou Ndiaye Obali te Ibou Ndiaye won Franc boppam maat maatee ko daan ko ñu ne tal nu yem moom Ibou Ndiaye mu final ka nga xam ne moo di Zambala bu wala bu école Boy nga xam ne nii moom moo di Zambala moo ca teg loxo daan Ibou Ndiaye loolu daal la def lesa ba tamit ka nga xam ne moom moo di guy gi bu ndaw moom moo jël la nga xam ne nii moom moo di lesa ba mel ni ko daal la loolu lépp boo demee fa nga xam ne nii moom moo di ca su fa nga xam ne moom moo di Equivox da nga ko fay fekk bu demee fa nga xam ne nag moo di ca moom lan fay fekk mooy lag ak ëmm daal mel ni ki daal réunion boo xam ne dañ koy yaatal bu ñu yeboon waaj ko ci mardi jii nga xam ne moom la jëm mel ni ki yëglikaay bi di record ci acte la ren ba xëy na di ñu xamal loolu ginnaaw seen dernier acte ci 2STV nga xam ne daje woon nañ fa keneen koo xam ne nii ab promoteur la muy Pape Thialis Faye moom tamit woo na mbër nga xam ne ñoom la tëggoon mel ni ki nag moom ab saison fa moo taamuwoon ubbee ko fa daal du fenn fu dul Joal fa la ubbee woon fa nga xam ne nii wala boog fa la ubbee ab saison ci làmb ji nga xam ne àndul ak dóor fësal fa tamit mbër yi mu tëgg muy tafaatin yi booy Niang moom patron wu Leewtoo production keneen koo xam ne nii moom ginnaaw ba mu jongante jee te mujjul jongante ndax ak wér gi yaram wala boog ak wéré di muy Bombardier ñibbisi na ci réew mi dégg kaay we daal xam nañu ne bombar Bombardier ñëw na record moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki waaye Baldé loo ci mën a dégg moom weekend bi loola waaye mën a wax tàngoon na jër jër waxoon na neexoon na lool ci amateur làmb yi bi fi mu nekk nii naam bu bëggee dégg moom daa mel ni moo teg ay tànkam tegale di dicté ay luwaam ndax million ya bari na bëree ba neex na loo ci mën a dégg daal Balde làmb ja sàjjan voilà moo doonoon suñu revue des titres ñu koy euh, commencer rek tey JDA bi euh, comme d'habitude ah ni ñu koy defee saa su ne Babacar. Mhm. tey dañuy dooraat ak suñu quotidien bii di suñu làmb ñëw ci ak euh, diggante kii di Eumeu seen ak Lac de te mu doon combat bi nga xam ne dañ ko war a tëgg le 4 avril incha allah bii di ñëw. kii di Eumeu seen nag moom ne ne jeu sais détecter les forces et les faiblesses d'un adversaire Lac 2 daal di koy tontu ne que j'ai mûri waaw loolu moom daal li ñu wax daal mooy le ma revient après la tempête sax daanaka. la ça loolu mooy daje bi ñu amoon bëri ki démb xam ne ne amoon nañ benn triplex bu ñu doon mhm. yu bëri nag nekk ni ku ci ne yaa sa morom. Mhm. xam na moom ni muy détecté wala ni muy liggéey xam na ay su ay adversaire am effectivement. Mhm. nit ki ki ngay jonganteel wala nga jéem a xam ay forum ak ay faiblesse am. pour nga ko exploiter pour mën am ndam. dëgg la defe naa loolu su ko waxee. des na ko war a nangul parce que tax mooy rawatina adversaire boo xam ne Oulimata bëri ngeen deux fois mm-hmm. bëri na ñaari yoon moog la mm-hmm. niil benn moom mu gagné ko benn kon war war na mën a xam ay forme li mu tontu defe naa xel waa war na ko nangu maanaam léegi màgg naa mm-hmm. waaw te loolu tam ay wax la mbër nag bu la na màgg naa ci xel te nga am fu ngeen jaar ñaari yoon te xay na la mu bëgg amu ko tey mu ñëw ne la màgg naa ah loolu mooy ça veut dire que kon moom itam am na loo xam ne ni mu koy waaj mu bés boo xam ne daal mhm. euh, li ñuy ñaan yàlla mhm. yàlla nañ si yegg ak jàmm la kat Afrique nuyu suñu papa Gaston ko tëgg mhm. yàlla na si dugg ak bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin ñoom euh, ci jàmm dañuy xuus ba tey ci euh, bés boobu di 4 avril di wax ci diggante kii di Modou Anta ak Diène Kayré moom Modou Anta li mu wax mooy je me je suis prêt à tout Diène Kayré moom itam fi mu ne dina ñu ngi daal ñu ngi tokkoonte nappante daal Babacar waaw nappante parce que mhm. muuru moom nee na ko pare na pour lépp jénn ne ko mënuma Ibrahima ça veut dire que loolu mooy li balaax rek fi ne nekk ne mhm. laaj mhm. waxante dinal def psychologique voilà psychologique day am foofu lañ toll mais nag xam ne ñoom ñaar ñëpp pare nañ parce que ku lekk avance depuis ay mois mu leer na mois d'avril ngay bëre. Mhm. incha allah rabbi ah fi mu nekk nii pare ku pare kon ba heure bi moom boo. seet donc donc fooy pare ti jëm. ayca <laughs> dañuy daal di mhm. dem ci kii nga xamante ni mooy combat bi nga xam ni jot na am ci weekend bi jàll. Mhm. Euh, nga xam ni moom moo daan kii di B52 junior. ci 13 minutes donc Babacar. waaw démb mu mel ni sëñ Moudou Niang comme ni mu koy defee at. Ah, yàgg na koo def bu jot. mooy ubbi sa saison bi ci déet avec frappe. et boo xoolee mooy ëpp ay zone muy promoteur boo xam ne tamit vraiment. dama koy. maanaam maanaam royukaay la daal sëñ Modou Niang parce que li tax ma wax ko mooy bëri na lu muy jëf te doo dégg kàddoom mhm. te loolu am na solo trop ci doomu aadama mhm. mhm. boo xam ne nag xëy na li nit ñi doon xaar ci ñoom defuñu ko parce que dañ doon xaar ñu bëree xeex que ay xale lañ ñoom ñëpp xale yu ndaw lañ dañ toll ci jóg sëñ Modou may leen sens jox leen grand combat drapeau sonn na fi fàll fàll defe naa démb ni ñu bëree ci la am na mais nit ñi xaaruñu woon parce que nekk nañ fa di liwaatoo pendant treize minutes jël ay avertissement ba benn moment xam nga mooy loolu te defe naa mbër nag yow adversaire bi comme loolu ma seen wax sànq yow mii bëre si war nga jàng sa adversaire boo ñëwee fan nga war a ak moom mais bokk na ci xale yi nag des fois mm-hmm. dañ dul def apprentissage su làmb ba mu mat sëkk sëkk sëkk et puis dañuy mm-hmm. wane nekk ñoom ay champion lañ te xam-xam xaw ma da cee bokk nag. dëgg la te ku ne xaw ma. Mhm. dinañ la xamal. dëgg la euh, kii di euh, Malick Ning moom ne trois ans pour les lutteurs qui quittent leurs écuries Malick Ning moom euh, il veut croiser la sanction. waaw Malick ñu moom moom moo jiite Ariels mooy président école des écrits yi. Mhm. maanaam tey mbëri mhm. comme ni doon quitté ci écrits yi nga xam ne dañ lay yor ulimata formé ba def ci yow lépp li war da ci yow. ba nga nekk mbër bu ñëpp xam nga xëy a xëy ñoom moom nag comme moo jiite moo tax mu bëgg saisir CNG. Mhm. pour que nag. mu dakk mu indi mu dakk. Mhm. maanaam ñu indi ci ay sanctions. Mhm. parce que itam nag neexul nag. formé nit kii. muy fayeeku cent mille. dem bay fayee ko ay millions lu ci mën doon defe naa ne nañ ci waxtaan rek que tamit formation formateur moom. dafa jar a bàyyi xel. dëgg la lu mu wax en général dañ ci war di bàyyi xel man Babacar dina faral di wax benn wax su ma ko waxee xëy na dina am ñu mais kii di Ibrahima Faye Beuz. donte nekkatuma ci ay loxo. Mhm. di ko liggéeyal. Mhm. mais mënuma ko fay parce que li tax mooy bu ñu ma xamee grâce à moom la ginnaaw bu yàlla jàlle ak yonent bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ak samay waajur parce que moo ma détecté génne ma wane ma ko ñu xam ma waaw te loolu dafa jar di bàyyi xel. dëgg la Babacar ay ca euh, lii di formation euh, accélérée en garde rapprochée à Mbour mu mel ni waxoon nañ ci sax mhm. euh, fan yee jàll dañ ci ñëwaat rek mu doon dernier point bu quotidien sunu làmb tey. Mhm. mu ne Tyson Guinguinéo et compagnie reçoivent leur diplôme dafa mel ni mbër yi ñu ngi ci kawam. bien sûr waaw loolu Bamba Mbuub moo koy dina moo koy faral di def moom mooy ñëw jóge Italie. Mhm. defal mbër yi garde rapprochée ay tamit des fois nga toog doo bëree mhm. boo gisee loo mën a liggéey comme garde rapproché métier la mhm. nga dem liggéey ko gagné ci sa vie dafa am solo muy loo xam ne ñoom ñu am am nañ tey seen ay diplôme mhm. ah wax yàlla kon ku am sa diplôme ci benn biir nag bu la neexee am nga droit liggéey ko. dëgg foo ko présenté tamit di nga liggéey muy la am solo daal. lu am solo mu doon nag suñu dernier point comme ni ma ko waxee léegi léegi bi nga xam ne moo constitué woon ah titre euh, tey euh, suñu làmb mhm. dañuy laal di rek euh, dem ci bii di le record comme ni ñu koy defee tamit saa su ne. Babacar tey nag le record dañuy ñëw ci actu de l'arène ak diggante Eumeu ak Lac 2 ñu ne une réunion élargie mardi. waa réunion boo xam ne daal ci ni ñu ko gisee mooy bu war a am la xam na ci promoteur bi lay dox waa Gaston production. Mhm. ak camp wu mbër yi. Mhm. ak waa ministère rek yooyu parce que dañuy jéem xool rek nu ñuy ji la gàtt parce que du làmb ju ndaw. Mhm. te bés itam boo si jëmee Oulimata nag da nga koy waajal. préparer sa lépp. parce que lu ne day ñëw ci bés bi lépp nga war préparer ko. prévenir. avant de. vaut ah, <laughs> mieux. waaw waaw. fagaroo gën faju faju noonu la demee dëgg la Babacar diggante mm-hmm. itam kii di Bombardier ah mi nga xamante ni moo dellu si démb dellu si fii Sénégal ñibbisi waaw Tafatine Boy Niang ku ne xam ne Pape Thialis Faye ko tëgg moom mu choisiroon Joal ci mm-hmm. weekend bi pour mm-hmm. ñuy mu mel ni ñaari mbir yëpp ah daa mel ni kon waajal ci bës laay wax si moom moom itam yàlla wala mu neex son patron Pape Thialis bu koy nuyu di ko ziar di nuyu waa l'autoproduction yëpp bokk na ci tamit ñim boobu ñu koy ñaanal rek mu dikkaat nekkaat ci entraînement mm-hmm. mën a préparé wu mook Balla Gaye bis bu yàlla defee ñu war a daje mm-hmm. ñu daje que le meilleur gagne rek incha allah amin yaa rabbi yàlla nañ ci mm-hmm. yàlla yóbbu euh, encore ci jàmm ak salaam euh, mu mel ni démb week bi yëngu woon na lool ci euh, wàllum lutte simple Babacar ñu gis nag ay image ci fii ci Equivox TV lu xewoon démb Babacar moom kay booy woo dem ba samedi samedi la commencé woon uli daal la commencé ba démb si dimanche ji. lit uh-huh. simple bi. defe naa image yi leer na nañ. ci Equivox ndax Equivox yàlla dogal na ni moom. Mm-hmm. Ah, image yu leer lañ lay. macha allah allah tey ah, ngi naan neex na wax man nag du ma ne neex na. Uh-huh. parce man a man a du moom. Mm-hmm. waaye ñiy déglu nag des fois nit wala ne la reportage bi jaar na yoon. Mm-hmm. wala nit wala tamit ne la wàññi li wala yokkal li te loolu lépp mm-hmm. borom dañu nit ñi dañu bëgg mu baax. am mel ni weekend bi Fallou Ndiaye moo di woon 4 millions fa nga xam ne moom moo doon ca. arène nationale mais 4 millions yi soo ko déggee du 4 millions yëpp 400000 yi day dem ci keesu maanaam day dem ci CNC bi ci organisation bi mhm. mel ni ki nag loolu bi mu amee day am luur am léger Franc nag mu nga foon mhm. ñoom Serigne Ndiaye mhm. ñoom Khadafi boo yëpp ñoom fils de Batlenski bëri yu mag yëpp a nga foon presque ñoom Libidor Cheikh Tidiane Niang waaye nag ca final ba nag kii di nga xam ne moom mooy Franc bu parcelle bo wala bu parcelle sax laay wax bu jàmbaar wrestling académie moo gagné tournoi ba ci kaw tas yaakaar mm-hmm. mu nekkoon combat bu neex mm-hmm. ki nga xam ne nii moom mooy kaagourde bu Dalifor mm-hmm. jël lese ba mu nekkoon bis boo xam ne vraiment keral xol yi sedd na mbayang lu mumoo ngom Fallou Ndiaye daal mention spéciale mu waa Ndiaye production bët set démbati dimanche ji ñu demati ak euh, terrain gaal yi mën nañ ne daal un week en lamb daal macha allah jax si ñëwati 3 <laughs> millions terrain gaal gi ulimat foofu toj foofu tojati Ibou Ndiaye óbbali Zambala ah démb démb kon gisuma la waaye yaa ngi woon ca dox sa domaine baat waaye maa ngi woon démb moo taxit nuru nga ko sonn Babacar fa Babacar yuuxu yu doy wax ki nga xam ne mooy Zambala bu mbaaw jël tournoi bi ñu koy félicité muy xale bu am yar force tranquille laa ko tudde mbër moom Zambala ko jërë bàyyi xel uh-huh. waaye Ibou Ndiaye tamit nekk mbër boo xam ne day mm. xumbal lam da koy yëngal sopp yi nit ñi bëgg ko muy doomu joof yor ñu final final bu neex image yooyu yëpp defe naa ku dem Equivox mhm. da nga ko gis dégg reportage yi gis lépp mu mel ni daal mhm. actuellement fi nekk ni moom macha allah ah non macha allah <laughs> mu doonoon week boo xamante ni moom wax fa dëgg neex yàlla mhm. ah, richoon na lool ci euh, lutte simple waral nag sama càmmiñ sonn lool lool lool waaye comme ni ñuy wax rek li ko jar a ko jar waaw lu ko jar a ko jar lu ko jarul ñooñu man jaral nañ ma bu ma sonnee sax sama coor man nëbbu ko. dëgg la te ñëw def sama joob rek. parce que tamit li tax mu tax. Mhm. waa Peccopé na moo waral tax mu tax. aca <laughs> Babacar ci loolu la ñuy euh, daal di ndar keppe ah suñu journal de ren bu tey ah, ah. di jaajëfal suñu caméraman bu baax bi di ah, Balde tey Balde moo assuré woon cadrage bi di ko nuyu bu baax di mm-hmm. nuyu toujours suñu réalisateur bi di Habib ah di leen jaajëfal bu baax yéen euh, équipe Equivox TV mm-hmm. bu baax a baax a baax Babacar lan ngay tàggatoo di la remercier mm-hmm. di am plaisir de partager ak yow plateau bi rek macha allah di la ñaanal jàmm bu baax di ko ñaanal sa ay famille ak say mbokk rawatina sa dëkkandoo yu nuyu ñoom ñëpp jërëjëf parce que comme li ma wax rek Medina moom sama dëkk la mhm. parce que mu fa bëri ay soppe bëri fa ay yoo xam ne yàlla dama booleeg ñoom lu yàgg mhm. Mhm. muy nuyu ñëpp mais tamit du ma mën a fàtte waa Petersen parce que tamit bi may dem ci weekend bi dañ ma solal solal yàgg maar jib seen a solal yàgg maar man Babacar bu Modou la ma moo ma jox simis bi nga gis bule bi macha allah kon waa Petersen moo leen mooy sa fàtte ñoom bu Modou la ma ñoom Abdou Sakho yaa ngi dégg ñoom Mor Diouf. Mhm. gars yi fa nekk yëpp ñoom. jub seen Petersen daal ku fay jaay di fa yëngutu mhm. ah maa ñaanal jàmm. Mhm. ak fu waay mën a nekk di yëngutu yoo xam ne amuñu seen fay. di ñaan Sénégal yi fi yàlla def jàmm. mais as cooy ja Serekunda Gambia. maa ngi ko Badara Kane nañ ko waaye kenn du ndongo moom it ziar nañ ko bu baax a baax <laughs> waa kay euh, jërëjëf donc ah, ci teewlu bi ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen journal de l'arène jërëjëf.